ndaje tey xam nga ndaje bu am importance la ndaje boo xam ne day wax ci naan bien informatique bien informatique nag dañuy jël connaissance yi nga xam ne informatique bi moom la am ak mathématique moom la ñuy boole pour mën a vraiment exploiter résultat recherche yi ñuy def boo defee li ñu naan ci biologie bi nga liggéey ci li ngay am ci ay information day bare pour traiter ko bu baax ba nit ñi mën ko utiliser lu si gën a bare day compliqué bio informatique bio informatique bi mo lay dimbali pour nga mën ko utiliser bu baax baax pour nga xam bu baax baax fi ngay jaar. politique yi ñuy def yépp daal dañ ko wara baser sur li ñaan ay évidence scientifique lo xam science da koy woné ni li boko défé da ngay am li nga am ay preuve kon nak ñun recherche lu ñu won rek ci lo xamni ne pour askan rek dañ koy jema doxal té dañuy éviter di doxal lo xamni ne teguñu ko ci benn base scientifique monde bi légui ay preuve la merci bi dañ base ci ay preuve

dañu xool doomu jàngoro boobu mais léegi dañ koy xool ba ci biir nu mu constitué ñaata lañu ay variété loolu lépp euh, vraiment séquençage bi moo ko tax te bu njëkk sax bala ngay par exemple bala ngay mën a am diagnostic bu benn agent il faut nga gis ko muy dund ak yooyu léegi soxlaatu ko dañ ci am benn partie rek mën nga def séquençage beeg yooyu mais séquençage boobu nag pour nga comprendre ko il faut mu am bio informatique technologie yu bees la boo xam ni informatique bi la ñuy jël pour analyser données yooyu loolu nag dafa complexe euh, léegi ci séquençage bi def nañ ci ay progrès mais nag ci bioinformatique bi dafa des lu bëree bëri moo taxoon nag ñu ni tey nañu def formation pour yokk bioinformaticien yi parce que ñoo ñuy jàppale léegi nag ñu ngi ko def ci réseau boobu nga xam ni comme ni ma ko waxee waa NIH euh, ñoo ko créé muy CRED centre de recherche yi ci ces maladies émergentes nak da fay lo xamni da fa nek ay 10 centres de recherche yo xamni ni day regrouper ay ay ay laboratoires yu bëri mais Sénégal mo ci deuk bo xamni ci 10 centres yooyu ñu créé euh, amna institution yo xamni ni nañ ci ñent ci yooyu loolu amul ci benn da fay wone rek ni Sénégal quand même centre de recherche yi ñu ngi def liguey bu bu rafet a rafet rafet.